màggaluk Touba di xew-xew diine dajale ay millions yi ci dëkk bu sell bi di Touba saa yu ñëwee nag kilifa yi di ci profité waale di def ay mbir yoo xam ni day amal njariñ askan wi loolee bokk na ci ab consultation gratuite di bis boo xamante ni dañ cey saytu wér-gu-yaramu askan wi te duñ ca fay benn dërëm loolu lee di xalaat boo xam ne ni Serigne Saliou Mbacke di sët ci Serigne Abdoul Khadir Mbacke am na ko fii ci gox bi di Touba Bagdad gox bi nag ñàkkoon loolu ay bërëb bu fajukaay waaye rafle woon loolu ci ay spécialistes yoo xam ne ni daañu mën a saytu wér-gu-yaramu askan wi docteur Mamadou tubaab Touba di fësal ne li lay initiative la boo xam ne liñu ñu war a wéyal la. lii nag ñun dañ ci am mbégte ndax poste de santé Baxdaat mu ngi tijji ci màggalu sëñ Abdou Khadre bi ñu barkeeloo ubbite gi ci bés bi ñu màggal sëñ Abdou Khadre lii ñëw toftalu ci kon suñu xel dal na ci post bi xam nañ ne post bi fii ki weer. dina dab poste yi nga xam ne njëkk nañ ko tijji. ca boobu la journée de consultation gratuite nag ay kilifa yu takkoo takku ci dëkk bu sell bi Touba teewoon ca ak ku ci mel ne Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr mi nga xam ne moo yor kàddu Serigne Mountakha Bassirou Mbacke di xalifa général waaye itam Serigne Abibou Mbacke mu Serigne Fallou ak yenn kilifa yu takk ki nga xam ne ni moom lañ ko dara jaal nag di Mahammed Boun Abdallah Dionne di premier ministre bu Sénégal yebal fa nga xam mooy ministre des di Amadou Ba mu yëkkati fa yi lay kàddu. li ñu jàng ci Serigne si jàng ko it ci diine mooy kuy wut yàlla ci nit ñi nga koy wut kon boo àndee lii nga xamante ne ak paj la docteur Dieng wax ko léegi ñu koy sant di ko gërëm ñëw fekk ay doomu aadama yu bëgg a faju nga faj leen jox leen ay médicament kon yaa ngi def li nga xamante ne moom la Serigne waa santaane di def li yonent bi santaane di def li yàlla santaane ci boobule journée nag li nga xam ne moom moo fa gën a fës ci ñañ fa saytu seen wàllu wér-gu-yaram mooy jigéen ñi nga xam ne ni ay jigéen yu wérul lañu ki nga xam ne moom moo di astu basel nag di fësal ni station bi nga xam ne ni amal nañu ko ci Touba Bagdad dina am bu baax a baax suivi jëm ci poste de santé bi nga xamante ne ni inauguré nañu ko ci màggal Serigne Abdoul Khadr gi ñu génn rafet na rafet na ndax boo dëkkee a ay nit nga mën leen jàppale surtout lu jëm si wér-gu-yaram ndax ku wérul talul dara soo fajoo boo wér sa activité yi ngay def yëpp war na mën surtout jigéenu weeru jigéen weeru moom dafa war di génn di dem ci goo xam di faju ndax du pour moom dong moom ak doom jigéen bu wéree askan bi yëpp wér na doom ji wér askan bi yëpp wér bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi docteur Dieng nag mi ngi fësal ne consultation yu ni mel ci gox-goxaan yi ci dëkk bu sell bi Touba mën naa tax ba ñu ràññatle yenn jàngoro yi nga xamante ne nii day faral di law ci biir Touba.